Cette convention de partenariat cristallise l'espoir de milliers de Sénégalais qui aspirent à un droit décent et à moindre coût. En conséquence, pour répondre à cette demande sociale, M. Mohamed Jean-Albert Charles Duboc et son ami M. Elhadj Moudei Sopnabi, ils s'engagent à mettre en œuvre, avec l'appui des partenaires déjà identifiés, au niveau national comme à l'international, et les acteurs des collectivités territoriales, sans qui rien ne pourra se faire, un premier programme de 1000 logements qui abritera entre autres des équipements structurants. Je pense que cela mérite des applaudissements. Parmi ces équipements structurants, ils ont pensé à un hub médical, un banquier, et financiers en même temps, des complexes hôteliers, des centrales, un central solaire ou des centrales, centre des affaires, zone spéciale et PME, projet qui intègre donc exclusivement le programme des 100 000 logements sociaux annoncé par le président de la République lors de son adresse à la nation le 3 avril 2019. Ainsi, il s'agira, à travers une approche sociale soutenue, de fédérer leurs forces et leur énergie afin d'accentuer et de concrétiser par une forte mobilisation autour d'un objectif commun, la recherche de solutions alternatives pour satisfaire le besoin prioritaire des Sénégalais, d'ici encore une fois et de la diaspora, qui est l'acquisition de poids pour leurs familles respectives. Nous prions le bon Dieu, comme vient de le faire notre pour que ce partenariat se prolonge, dure longtemps. Pourquoi Pour se renforcer encore plus dans le temps et pour qu'il nous autorise à nous tous, en même temps, à espérer des lendemains meilleurs dans un Sénégal qui aspire à l'émergence. Je vous remercie. Euh, di société bi ñu e di di sogo juddu tay juddu gogu mu juddu nak dafa don juddu bu yeme ndax li tax mu yeme defina man euh, sop nabi la nabiyeen la ñu ne Mor gay sop nabi ni Jean dibok kula ku kula jox tour bi ah seigne saliou mbake mu mag moko jox turu Muhammad mom mi tok kon tey defe naa table bi dafa ala dawme dafa rax sax dafa rax ndax euh, boo nee sëñ Saliou Mbacke ko jox turu Mouhamed bi rek defe naa sëñ bi Mbacke euh, amatul dara lu ñuy teg ci kàddu yooyu moom ci boppam dañ ko war a ziyaar li muy doon nag nit ku xonq ak tubaab yim ndax defe naa sa maam daf ni woon mujjum jamono ñoom ñëpp fii la ñuy ñëw jënd fi kër dëkk fi ñoom ñoo ñuy gën a sax xajoo ñun ñi fi dëkk loolu la sa maam waxoon te defe naa Mbàkke mu ngi feeñ ndax euh, benn ngi toog te ba mu ñëwee defe naa daf ni day investir Sénégal investissement boobu mu ñëw pour def fii mënuma lu dul di commencer ci alaaji Mor euh, alaaji Mor ndax alaaji Mor Gueye buñ koy wax defe naa région de Thiès nga koy déggee te fii nga ko mën a amee yéen waa Thiès yéen ko moom ndax defe naa yéen moom nitu Thiès nitu Thiès dong ngeen El Hadj bi ñu ñëwee dafa ubbi ay buntam ubbi léppam ànd ak ñun musuñoo laaj 15 laajuñu ba tey 15 jël na la mu yor yépp jox ñu ko ni liggéey leen lu ci am rek ñu xam ne loolu la defe naa social weesuwul loolu ci àdduna ndax tey jii li coon sekk naan nit ñi mayeetuñu ku ne yaa ngi ŋaf ŋafi ku ne yaa ngi wut loo nëbb ak loo am pour sa njaboot bi ñu ñëwee ci alaaji Mor fii cees bunt yëpp lañu ubbil ba fii ñu toog tey moom moo ko jël ci lépp nag ci frais yëpp laajuñu dërëm donc bu ñëwee ni ubbil nañu bunt pour ñu liggéey moom mii di Mouhamed Dibok dafa ñëw jóge ca réewam jël retraite yor na pension am alimentaire mën na dund te ci li mu yor mën na cee dund ba yàlla jël ko soxlalul kenn dara ñaanul kenn dara bu jógee dëkk ba dëkk ñëw ni day investir fii Sénégal ah Alaaji Mor Gueye def nga lu rëy de ndax ubbi nga bunt yi ndax bunt euh, bala ngaa investir day fekk nga ubbi bunt ubbi nga ko nag yaatal nga ko yàlla bu yaakaar tas ndax tey defe naa li ngeen euh, mbëbët mooy lu sori la te lu yàgg la loo xamante ni nee naa leen bu jëlee ay milliards moom Alaaji Mor Gueye teg ko ci loxo koo xamante ni ana man ana yow la gisante don man dey Mor gisuma ko dégguma ko te signé nañu jox nañu lim ñuy jox ñu ngi soog a gisante récemment defe wax ci sa mbaaxum morom nag du wàññi dara ci sa mbaax ndax alaaji Mor kii tey bi mu ñëwee ni la dama ñëw pour nga jox ma pour ma liggéey danga ni ko dinaa la jox nga liggéey waaye bala ngaa jël kenn mu liggéey ak benn xale dangay jël doomu Cees ñooy liggéey ca chantier ba Mor man euh, waxuma la sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais dama la sopp dama la sopp ndax xëy na on est euh, ay euh, xale lañ ñun ñu ngi soog a door yow yàlla teg na la ci waaye ba ñu ñëwee danga ubbi bunt yëpp di ñu bëmax ci suñu ginnaaw nga ne lekk di ñu bëmax te naan nag mun ngeen a mun ngeen cee am lu ne mun ngeen cee ñàkk lu ne xam nga looloo ma neex koo xam ni dalay jàngal ba pare naan la mun na lépp mun nga cee am lii mun nga cee daanu mun nga cee jóg mun nga cee lii loolu ku baax la ko ku mën tey li ma mën a wax rek mooy societé bii ñu jël dañu koy def ci ba nga xamante ni jaaykatu gerte bi war na cee mën a am kër gu mu dëkk ki teg taabal ci mbedd di jaay war na cee mun a am kër gu mu dëkk ndax li tax ma koy wax mooy euh, trois avril 2019 bi président naan na ko ñëpp a jàppale ndax dafa am problème logement ah tey bunta ngi ci Alaaji Mor Gueye ak euh, Mohamed bokk bunt taxaw na bunt bi nag ñun ñooy xam nuñ koy exploité ndax duñu def kër yu cher buñ nee social am na lu tax ñu nee social dinañ tabaxal ñi bëgg kër yu bakkane dinañ tabaxal ñi bëgg kër yoo xamante ni dafa yemamaay nekk ci seen euh, ci seen euh, xol ndax ñëpp war a dëkk gis nga yàlla daf ñu fi wàcc ñun ñëpp a yem ñun ñëpp a yem borom alal beeg ki amul ñëpp a yem ku ne danga am droit sa droit la pour nga am te sànq am na nu ko sëñ bi waxee nee na nga am oto bu rafet dëkk appartement bu rafet ah yàlla ji boo amul kër goo dëkk sa dara sottiwul ndax weer ak weer dafa jege ni mu jege mooy ah defena amna sama na samay moroomu jigéen ci sal bi defena bu dépense taxawé ba mu taxaw sa jëkkeur lamuy jëk xalaat moy fay appartement ba ngeen dëkk té fay dafa metti buñ ko dajalé tay mom alaaji Mor ubina ubbi na ni ñew leen ñu sét defena kuy maye bu ni la kaa ñu la nga am bo ca bo ca xassé dugal ca la nga am lek danañ mën a déggoo yëf yi dina sotti ku ne di nga am foo dëkk man nag euh, fi may terminer rek mooy euh, di wax euh, sama mbokk ñii di tabax kër société bii fi teew tey ñu ngi nii ci ginnaaw yéen ñi ñëw assister pour xool defe naa yàlla dina def ñu déggoonte ba kàddu yi déggoo ndax tey déggoo am na ci entre Mor ak société AGEC Mor defena suñu kaddu du yem fi ndax euh, liñu ñu moy da danga ni ma ties ji nga bëgg def capitalu senegal ma yag ko deg nak ci sen ben kilifa gu mag gu nek ci bir ties gi te ubi won chantier yi ba bëggon ko def capital ñu arrêté ko sëñ morgue yalna yalla na li nga mbëbët koku da doon mbëbët ñu waaye yow bu fekkee rasol lay nga àndal dara du la teye di nga def Thiès capital jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital nuyo bi suñu suñu sëriñ suñu wasila suñu sang di sëriñ Jili Mbàkke Mbàkke ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay man nag wax dëgg yàlla sama xool dafa fees ba mënuma wax lu bëri parce que daanaka li ñu waroon wax yépp wax nañ ko li may ñaan rek yàlla bu yaakaar yàlla bu yaakaar tas ci bija seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bija ji nga xam ne nii ñëpp ay góor yu baax lañ tëdd fii ci Thiès am naa ci yaakaar bu baax man nak xana damay ndaw ci société bi waaye bu ku président euh, El Hadj Mor ak Mohamed Jean Dubok teew ak Awa Naar Fall di directrice générale société bi man de awma leneen lu ma ci mën a teg xanaa lu dul di présenter yenn partenaires yi nga xam ne ñoo bokk ci société bi euh, Mohamed Jean Dubok defe naa duñ ko présenter mooy président bi madame Awa Fall Diop directrice générale bi man Souleymane Gueye man directeur général adjoint bi monsieur Yoro Diop mi présent dans la salle mon directeur chargé des projets Djibril Sanya, associé Momit, n'est que chargé des relations extérieures madame Ya Mariama Sagna je suis le plus affaire sociétale entreprise Wow, di wax ni que sànq dama fi dégg benn kàddu ni Mor Gueye El Mor Gueye moom waa Thiès la ma ne man dama ko nanguwul ma ko El Hadj jàppal ni que mooru Sénégal nga mooru Dakar Elaj Hadj Mor jàppal ni Mor universel nga ndax bu ñu société bi Africa Global Équipement ñun ñaan nañ yàlla suñuy mbëbët romb ñaan nañ yàlla ba projet même fu ñëwee Tambacounda wala Kédougou sax ñu dem defar ko di la ñaanal gudd fan yow ak sa njaboot ak ñi nga andal ñëpp di ko ñaanal suñu sëriñ suñu wasila di ko ñaanal sa partenaire yi nga andal ku mel ni Alioune Badara Guèye xam naa société ni nag dinañ ne Guèye ni ñoo fi ëpp waaye daa fekk Guèye ni buñ dee nee ñoo sant Thiès ci ci ndax man sama mi ngi tudd El Hadj Gora Guèye Gora Guèye bi ñu doon wax gouvernance tey moom moo ko moomoon donc man sama cosaan Thiès la ba fu may wax yéen am naa fi ay mbokk yu dëkk fii Thiès côté taaxi kaw di leen wax rek projet bi du suñu projet projet bi seen projet la ci biir projet bi pour wax ni que xalaatu Mor euh, Mohamed Jean Duboc ak Mor Gueye dañ ne comme gis nañ ni ko aussi bu wàllu wut wutal ndaw ñi xëy wàllu yombalal logement yi nit ñi defoon nañ ci sax ba ne dañ ci def fondation boo xam ne mi ngi koy tuddee solidarité inclusive solidar fondation boobu noonu dana ngeen may ma ci tuuti rek ma ma brosse en wolof parce que xam naa ni eh, président Jean Duboc dina ci wax tuuti ci discours am mais dama ko bëgg a leeral tuuti ci wolof yàgg nañ fi dégg ay fondation Sénégal mais guleet guleet ci concept bi ñu am ak li ñu ko bëgg a defee ñu gis fondation boo xam ne

looloo taxoon fondation bi ñu gën ko taxawal te fondation boobu Jean moom dafa ci wax nee na leen société bi bu leen neexee sax ngeen jël waaye man li ma gën a soxal mooy fondation solidarité inclusive bi dama ko bëgg a taxawal. ba mu ko waxee El Hadj Mor Gueye ne ko déet fondation boobu duma la ko bàyyi sa fondation la suñu fondation la te maa ngi ci biir mu nekk lu rafet man lenn rek laa bëgg di wax. gis nga àddina jafe na nit ñoo xam day am alal wala ne la ñew lañ ñu liggéey wala kaa lañ ñu bokk jamono ji comme ni ko madame la présidente euh, madame la directrice waxee kenn talatul ken ñepp a ngi daw mais nit ñu melni ni El Hadj Mor nga am ay nit ñu melni monsieur Jean Duboc je pense que c'est des gens yo xam man et j'en profite pour l'occasion pour lancer un appel président de la république daf leen wara recevoir daf leen recevoir en audience parce que c'est des acteurs de développement économique te dañuy contribuer ci économie bi da recevoir Et loolu j'en profite de l'occasion pour lancer un appel di leen wax nag jërë ngeen jëf affaire euh, accueil bi rafetoon na euh, ne ñu xam naa ni salle bi amul ay sekkeen ndax bu amoon sekkeen ñu simmuñu jërë ngeen merci beaucoup avec toute l'équipe sans oublier madame la directrice qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour la réussite de cet événement, ainsi comme M. Suleiman Gay. Donc je pense que tout a été dit, hein. l'essentiel a été dit. Mais j'ai plus de le dire, en fait, un grand homme, un grand homme s'identifie par rapport à ses actes. Tu vas wax loolu nee na nit mel ni nit pas nit social na ñu jël Elhadji Mor Gueye sopp na bi waye day bax comme ni ko tubaab waxee ñu ràññee ko ci ay jëf ci ay at Souleymane wax nako le DG adjoint nee na moor du mooru Thiès rek ñun mën nañ ko témoigner man président coopérative de plus de douze mille membres là ñu nekk au niveau de la région de Dakar ëmb Thiès Mbour Dakar déroulé programme moom bu li may wax c'est du concret mom Elhadji Mor ñu xamanté ak moom mu jël walu souf jox ñuko ko yamul fofu mu jël alalam tàmbale tabax kër yi tay ku dem mom boy rond point Thiès di fa gis ay série logement yo xamné mom elage El Hadj Mor Gueye sopp nag ñii moo taxaw jàpp ci jàpp so xamné amul benn condition nak li ko jowa rek moy na si askan bi gis seen bok témoignage bob la ron andi lu am solo la Jean mohammed jot nañu waxtan lu bëri mo wax lu ba dugg si détail yu bëri waye jàpp naa inshallah ñaan yàlla boole yalla mën na si jur ay njëriñ lu am solo ci réew mi moo tax tey damay wax rek ni euh, convention partenariat bi ñu signé du El Hadj Modou Gueye bi moo koy signé askan bi moo koy signé parce que Mor dafi taxawal askan bi parce que tey vous l'avez dit tantôt dans le cadre de la loi d'orientation président de la République ñëw na andi ak état bi programme 100 000 logements wéer ko si loi d'orientation boobu pour wax leen rek ni li ñuy tëral tey dafa lalu si benn cadre juridique boo xam a rappeler parce que vous vous ci loi 2016 31 boobu dafa di promoteur immobilier yi may aussi ñu présenter un programme mën a bénéficier aussi avantage yi état bi def pour mën à ce que nous doole. Et aujourd'hui bu vous Gueye xalaatee loolu nous avons ak naataangoom Mohamed macha allah ñu pour andi solution parce que solution laa parce que lors de son appel euh, lors de son discours euh, le 3 avril 2019.

de par son envergure au regard des nouveaux engagements de développement durable c'est important parce que loolu nekk na loo xam ne tey mën na yëkkati Sénégal yóbbu ko foo xam ne mën na wees sunu jàpp donc pour bañ a jël temps bu bëri parce que am na trop émission yi jaar à 13 heures donc pour wax rek pour wax si El Hadj Mawone macha allah wax bi yëpp na ñaan yalla rek yalla agal lepp zaar ak baatin dàq ci bépp ci wak bala amiin dafa ci xew li ëpp sunu jot di koy delloo bi gi allah. ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Jili Mbàkke ci ñaan yi nga xam ni commencé na ko léegi ñaan ko ñëpp dégg yal na yàlla nongu di nuyu sama partenaire bi toog di Jean Dibo ñu gën Mouhamed parce que seigne saliw moko tudde won kon mohammed bu ñewé and ak elage bourgay sop Gueye sopp na bi mën na def jamm li ñu bëgg ñu am ko wa damay wax rek li waral jotaay bi tay moy convention bu ñu wara man ak moom ñu nek ay partenariat ci walu immobilier ak lepp lo xamni buñ ko defee dina jariñ askan wi bari na li ñu xalaat naam immobilier bi moo taxawagun mais xalaat yi bari na parce que fondation la teg boo xam ni fondation bi tegu ko rek pour kenn nit daf ko teg pour askan wi yépp ñu ñaanal ñu rek lii nga xam ni moom la ñu mébét sémb ko tey yàlla defal ñu ci lu kawee suñu ñor bi mu ñëwee ñu waxtaan vraiment ma déglu ko xam ni ku am yërmande la nit la ku bëgg Sénégal parce que moom moo ma ko waxal boppam daf ma ni bi ma bëggee éversir Afrique laa tànn mais bi ma tànnee Afrique dama cee génn tànn ci senegaal bi mu ñëwee ba senegaal mu tànn ci Thiès. loolu ma bëgg ci lool munuma bi ma ba def sama vérification yow laa tànn pour ñu liggéey <laughs> loolu nag du ndaw ci man lu fekk na ma ci nag vraiment ci social bi nga xam ne France ñëw Sénégal fekk na ma ci kon jàpp na ne ñun ñaar bu ñu àndee yàlla mën na dogal li ñu bëgg ñu def ko vraiment bi mu ñëwee lu takku la dugal ko pour mën a commencer liggéey am nañu programme mu 1000 logements yoo xam ne war na ko def cees te ñu ngi ciy avancé bu baax te am nañ ci yaakaar loolu kon su ma toogee fii ñuy signé contrat bi dinaa ko wax ñëpp dégg euh, bi mu ñëwee nag bi ñu waxtaanee li ñu njëkk a waxtaanee mooy askanu Thiès rek ka ma ñor ak Sénégal gépp nag waaye li ñuy démarrer nañ ko démarrer cees bu ñu génnee cees nag doog a dugg ci yeneen régions yi. moom mu xalaat mébét yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo dem na ba Casamance fu ne xalaat na fa ñu dem wuti fa suuf pour liggéey ko kon ñu sant ko bu baax di sant nag presse bi aussi parce que seen taxawaay rafet na am na solo vraiment lépp loo xam ni nit bëgg na ko xam ci Sénégal bu ko bëggee rek day xool presse bi quoi ñu sant leen bu baax gërëm leen tey wax président de la république mu gën a bàyyi xel presque bu Sénégal parce que vraiment ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu lu ñu leen gën a jàppale ñun xeeb nañ ko di sant Awa Naar parce que mooy secrétaire u Jean Dibo euh, ay yoon yoon def nañu ay réunion def ay séminaire te dara waralu ko lu dul nu ñu fexe ba askan wi gis ci seen bopp kër yi ñu xalaat nag dañ ko xalaat rek pour def ko kër yoo xam ni jaaykatu gerte caaf yi jaaykatu jën yi ñëpp dañ ciy mën a am parce que booy dimbali ay nit doo xool rek ñu féete kaw man damay faral di wax ni su may jàppale ay nit damay xool ñu féete suuf ñu fexe ba nga xam ni li ñuy def ñoom dañ ciy gis seen bopp ci cadre boobu la ñu waxtaanee ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di gërëm mbooloo mi yëpp di sant Alioune Badara bu baax a baax wax na dëgg. Euh, parce que bi muy taxawal émergence sociale dañ ci waxtaan mais wax dëgg yàlla ay jàmbaar pire ngi nii dama wax ni président de la république war na leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax parce que 12000 membres moo nekk ci ginnaaw jaaykatu gerte caaf yi ñëpp la dajale taxawal ay cité muy Thiès muy aéroport Diass te lépp dañ ko jënd ci seen xaalis dama jàpp ne nag ñi nga xamante ni dañuy liggéeyal askan wi. président de la République war na leen bàyyi xel jël ci suuf si jox leen ñu mën cee jàppale askan ku mel ni scientifique bi ku mel ni scientifique bi jóge France ñëw indi ay moyens ñëw ànd ak man ñu liggéey ñii président da leen a war a gëstu jàppale leen jox leen suuf ñu man ko delluwaat ci biir askan wi ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di gërëm mbooloo mi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Mesdames, Messieurs les invités, euh, chers journalistes et chers associés, <clears throat> nous voilà réunis aujourd'hui pour euh, acter la convention de partenariat qui lie la société Africa Global euh, Equipment Corporation, AGEC, et l'entreprise Soponabi pour la réalisation de, de projets immobiliers dans la région de Thiès, en particulier, mais aussi au Sénégal en général, dans tout le pays. Mais avant de poursuivre cette allocution, permettez-moi, chers invités, de faire la biographie, pardon, de ma modeste personne. Moi, je suis né le, 7 octobre 1951 euh, en France, en Normandie. Je pars sur 71 ans. Donc, euh, je ne viens pas au Sénégal pour m'enrichir. Hein, c'est une parenthèse. Hein. Il est trop tard pour moi. Hein. Mais euh, voilà, je suis marié, j'ai été marié en France, j'ai eu trois enfants en France. Au jour d'aujourd'hui, je suis marié avec Mariana, Mariana de Bignola, euh, Casamance. Donc, euh, j'ai fréquenté effectivement un site normal des études et cela m'a été sanctionné par des diplômes d'études supérieures dans mon pays natal. <coughs> Bon, je ne suis pas un professeur, ni un avocat, un ingénieur, je suis un homme d'affaires. J'ai dirigé des, grosses entreprises en France, donc euh, je suis euh, effectivement retraité. Je connais le Sénégal depuis 35 ans parce que euh, je tiens encore à ouvrir une parenthèse, c'est que j'ai été président de club de football. Et à l'époque, en France, j'avais deux joueurs sénégalais qui jouaient dans l'équipe qui m'ont fait connaître le Sénégal en 1986. Donc, vous voyez, je connais quand même euh, le Sénégal depuis euh, très longtemps. J'ai été aussi importateur euh, de, conteneurs de, de fripe à Koloban. J'ai été pendant plusieurs années à Koloban dans les années 95. donc, j'étais le seul Toubab à Coloban. J'habitais Coloban. Donc, euh, et on avait même une équipe de football à Koloban à, qui j'ai offert des, maillots de foot et des chaussures, etc. à l'époque. Et c'est avec euh, certains commerçants de Koloban où je suis allé en 2001 euh, à Touba pour rencontrer mon cher et grand marabout, Serine Selyou Baké. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, je tiens à le préciser, car j'étais assis à sa droite il me tenait les mains et c'est lui qui m'a donné le prénom de Mohamed. Donc euh, voilà, je tenais à souligner cette parenthèse. Et une autre, <clears throat> autre chose aussi, c'est vrai que ce projet de partenariat avec euh, la société Soponabi, il y a des, choses invraisemblables, des concours de circonstances. Euh, c'est-à-dire que quand je traversais euh, Thiès euh, il y a plus de 30 ans, euh, je, me disais que Thiès pouvait être une ville économique au Sénégal. Parce que je partais sur Saint-Louis, je traversais Thiès et je m'arrêtais à Thiès. Et comme par hasard, 30 ans après, je me trouve ici. Quoi. Et grâce à Dieu, en fin de compte, j'ai rencontré un homme formidable, Morgueil, Nous avons discuté ensemble euh, pendant avec euh, Awa. Et puis, euh, il y avait aussi une autre personne, Mustafa Diop, à ce moment-là. Nous avons discuté pendant deux heures. Et j'ai trouvé beaucoup de sincérité dans cet homme que je ne connaissais pas. Et en plus, on avait des objectifs communs. On avait des accords sur beaucoup de choses, sur le social. Et donc, euh, je peux dire que Dieu a fait, le fait de rencontrer cette personne m'a permis de, m'engager avec lui euh, sur ses projets. Donc, euh, cette convention de partenariat que nous allons signer sera le début d'une longue et généreuse collaboration entre nos structures. En effet, nous avons choisi de collaborer avec M. Morgueil euh, parce que nos valeurs, nos croyances et nos objectifs convergent ensemble. Nous sommes ravis de travailler avec M. Morgueil dans des projets comme l'immobilier, l'agrobusiness et tant d'autres, mais également dans la Fondation Solidarité Inclusive. Euh, cette fondation me tient énormément à cœur parce que euh, je suis aussi dans cette fondation et je, tiens à préciser quelque chose de très important, c'est que nous souhaitons, et parce que moi j'y crois personnellement, nous souhaitons développer euh, l'agriculture et aussi l'élevage, créer euh, véritablement une structure qui soit euh, saine, une structure qui perdure dans le temps et qui va permettre effectivement de créer des emplois parce que le but en fin de compte c'est la création d'emplois la création d'emplois, non pas des emplois précaires, mais des emplois avec euh, ce ce qu'on appelle tout simplement des CDI, des contrats à durée indéterminée. Bon, il y aura des périodes d'essai, mais il y aura des contrats à durée indéterminée, et de façon à ce que les gens y cotisent et qu'ils puissent un jour toucher aussi une retraite dans le privé, comme dans le public. Donc, euh, euh, c'est un point de vue euh, que nous avons en commun et j'espère que, effectivement, cette fondation a besoin de fonds. On ne parle pas de dizaines de millions, on parle de milliards. Moi, je vais partir aussi par la suite en Europe, bien sûr, et me rapprocher auprès des instances européennes parce que j'ai quelques relations pour obtenir des fonds pour cette fondation. Mais il faut aussi que euh, certaines personnes au Sénégal puissent aussi apporter quand même aussi un soutien financier à cette fondation. C'est la première chose qui doit être faite pour pouvoir en fin de compte solliciter les instances internationales. Donc ça c'est quelque chose euh, personnel euh, que je voulais apporter dans le discours qui n'apparaît pas, mais enfin voilà cette fondation euh, se fixera comme objectif de lutter contre le chômage, vous voyez, ça revient sur ce que je viens de dire, de lutter aussi contre l'immigration clandestine. Vous savez, moi en France, euh, j'aide beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui sont euh, dans le besoin, qui ont des problèmes, parce que l'Eldorado, c'est plus comme il y a 30 ans. malheureusement, c'est une réalité. Mais je pense que le, Sénégal peut devenir, l'Afrique, même certains pays d'Afrique, d'après moi, peuvent devenir le, grenier de l'Europe. Mais il faut effectivement beaucoup de travail, beaucoup de volonté. Et malgré mon âge, j'en ai encore. J'ai encore de la volonté, j'ai encore de, la persévérance en moi. Et euh, donc, j'espère que on peut euh, effectivement collaborer dans ce sens euh, avec les Sénégalais et Sénégalaises en général. Bon, je ne saurais terminer ce discours sans au préalable remercier euh, ma femme et sa famille pour l'hospitalité accordée à ma modeste personne. Je remercie Madame Awafal pour sa disponibilité et ses conseils. Je remercie tous les associés de la société AGEC. Je remercie mon ami Morgueil, parce que pour moi aujourd'hui c'est un ami et sans oublier euh, nos partenaires qui sont dans l'État, les, les, banques, les coopératives d'habitat et les sociétés de construction. Vive Soprenabi, vive AGEC.